alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin salawatullahi wasalaamu ala sayyidina muhammadin abdihi wa rasul sëñ bi xëy na xër rek waaye te nag ba tey baax na ndax buñ fi doon wax ba suba yi du tax ñu jàpp ne wax nañ li ñu war a wax doonte wax rek sax doyul kon bi ñu nuyoo kilifa yi fi nekk yépp Euh, tàmbalee ko ci sëriñ Maam Thierno teewal fi suñu kilifa sëñ Muntaxa sëñ Touba maa ko wax ne ko toogal fii euh, ndax li ñu aada woo ma ne ko loolu moom buñ ci jëm noonu nanu seet li gaadu rek ak li mën a nekk ñu di ko def te sama jotaay yow fii toogoo parce suñu doom wante dangaa toog ngir ku la yónni te wax naa sëñ Mountakha ne ko man du ma wax ci kaw mukk di wax suuf yàlla xam ne du ma ko def da dafa am na eh, sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax wax naa sànq li ñu fi indi bare na eh, bi ci jiitu mooy sa maam Cheikh Mouhamadou Moustapha te loolu mooy sëñ Touba rek bu ñu ko waxee sëñ Touba mooy lépp waaye étape yi ma wax la léegi ne la bu fekkoonte ni yoonu murid constitution la sëñ mo sëñ Modou Moustapha moo élaboré constitution boobu ndax bu ñu déforméwul taarix histoire rek daj na lu bare euh, bi ci des sa diggante sëñ Aliou sa waajur ak sëñ Mourtada bi sëñ Touba di soog a dem sëñ Moutalla ndaw la sëñ Modou Moustapha def ko comme doomam waaye ba mu ko yóbbu ci daara mook sëñ Aliou la boole euh, wax naa ko léegi ne ko taarix léeg-léeg nga nëpp nëppal wante sëñ Moutalla day wax ci moom lu bare ndax am na ñoo xam ne dañ leen a waajal loolu sax diine la ndax yonent yi dañ leen daan waajal waaye nit ku baaxit ku nar a baaxit fokk nga am foo lu base bu wóor moo tax daf daan nettali ci moom lu bare xëy na sax ñoom sëñ Cheikh xëy na duñ ci xam loolu euh, te bi ci deset mooy sëñ Cheikh ak li may wax ci moom dama koy wax ne ko sa nawle bu la dee wax wax bu niru bu neex dangaa war a tiit bul defe ne daf lay wax lu neex waaye daf laa daf laa bëgg nga laxasaayu waat sëñ Cheikh waxtu bu ne daf ñuy soññ doonte suma ni mu ci ñun la ndaxte dafa am qualité yi mu yor yoo xam ne wax naa ne qualité doomu aadama dañuy wax ne doomu aadama du mat wante lan mooy mat dañ naan yàlla rek mat waaye yàlla dañ ko war a génne ci yenn détails yi euh, li ñu tuddee mat ay qualité la am na qualité yoo xam ne bu ko nit amee bu ci amee benn wala ñaar wala ñett wala benn rek sax manes naa wax ne mat na parce que yombul leneen bu am lu mu bari bari bari bu ca amul benn kooku mënees su ko tuddee ni moo tax may wax ne li alxuraan di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba innaka la ala xuluqin azim ñu jàpp ne yàlla daf ko tagg yàlla du tagg nit ndax tagg boo ko defee nit day mel ne kooku daf laa féete kaw kon yàlla dafa wax bi yaa ngi ci ay qualité yoo xam ne bu ci lépp dajee kon dangay ngay mat loolu nag dafay di naqaree ndax nit sax du ko xam lépp wante la nga ca xam mën nga caa jàppee ja des loolu mooy sëñ Cheikh fi mu jële li mu am ba noppi waaye li nga ci junj léegi wax nga ko am na ngeen ci junj nit ku woyof la ku am dogu la alazmu la alxuraan di wax dogu mooy détermination ci wàllu nit mooy boo demee ba ñëpp xam ne lii boo ko defee kenn duuta la yedd wàcc nga nga laxasaayuwaat jóg loolu la nit ñi foofu la nit di rawante loolu la ñu sëñ foofu la jaar moo tax ñi mu nekkaloon ci jamono yépp dañ ko naw defuñu ko woon wujj defuñu ko woon euh, safare ko ndax dafa leen a jox cër ba mu leen war a jox ñu jiital mu jiitu ñu jiitu mu topp ci ñoom ba mu demee ba gis na ñemewu leen a daw di leen jiitu te bëgg naa dem mu xuus ci man màndig moo xam ne lu ne mën na ko caa fekk ndax jékki-jékki na cërëx ci euh, jëmboo la ganj boo xam ne xamoo sa tànk sax fi ko teg am njàngoro nga fa am def nga far foo jaaree fétal ba dem ba egg foo xam ne xëy na ñoom bañ ko eggee itam soxarewuñ la ko dañoo xam ne sa détermination danga am foo jaar te loolu moo tax alxuraan di ko séparé wax naa leen ne leen alxuraan moo ko séparé moo wax yonent bi salaat na mu wax si biir kama sabaru ulul azmi ulul azmi ñeent lañu te yonent yi quatre euh, euh, euh, ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett trois cent treize lañu kon ñeent ci am détermination boo xam ne moo tax yàlla di wax yonent bi defal na ñoom kon baat boobu lu bari def tënku muy fexe ba gëm gëm mu ne su ko lijjanti yàlla nee na moo koy def waaye nag mën ngaa jaar ci yoo xam ne dana la ca dimbale loola ca biir la lépp laxasoo mën ngaa muñ tey nga doy mën ngaa woyofal sa bopp te euh, li ñuy li ma wax léegi sànq dafa bari ñaari ingisatu yu alxuraan bi wax benn bi man ñoom lañuy ñuy firee ñoom gëm sa bopp ak xam sa bopp wa ida xila lahu taxila xatarul azatu bil ismi kooku mooy ki gëm boppam defe na ne ku àndut ak moom rek da koo bañ kooku nit du ko def bi ci des nag wari daan azatu li rasul yi mooy xam sa bopp jaar fa nga war a jaar ku la ca ànd ak yow nga jàpp ne baax nga nga jël ko xool ku ca àndul te nga jàpp ne lam jàpp moo gën sax yow la nga ne bu defee jàmm tey waaye loolu ne ca newul rek sax mu noona ah, kooku nit du ko def loolu moo tax suñu siyaar ma ne ko ñun dañuy dem ci lu ne xëy na dañ ko gis waaye yaakaar naa ne nit ñi ku leen euh, euh, tegul wala ndax sax dañuy wala fii dañuy wax ne bañ naa la ba euh, du du def naa xamoon nañ koy waxee sama bopp la doon gënal du bañ naa la waaye loolu njuumte la sax nit soo ko nee sama bopp mën la gënal rek bañ ko da koy wax ne def naa la li ma def sama bopp loolu moom lañ gis ci mu jikkawoo ko fu ne lu ne fii ba ma ko waree ba ma dellu wax ñu seet si liggéey bi xam naa boobu dafay doon ma di wax danaa ñëw danaa ñëw tey mais du gis mukk ba feeñalal ma ne la nga waxoon defoo ko te yàlla bi bi nga xam ne ba ma ko waxee nar naa wante loolu lépp muy wane ne li muy def kenn taxul mu di ko def liñ ci wax léegi rek la yàlla rek la te yàlla moom la sëñ Tuubaa mi ngay minu minu ko minu woon yàlla te yàlla yombul ku la ne dama cee dem man kese wala dugg naa fi génn day day nax boppam rek dafa am aw yoon wu mu doomu aadama ne a nit sax jàll moom ajaay ko maakaar ne bachar añu ko yonent yi sax dal wax ñoom direct kon du du du ko ndaw bu mel loolu amee kon mu xam ne lépp looy def te yàlla rek tax sëñ Tuubaa bi nu ko won ndax yonent yi fekk ñu leen fi alxuraan nekk ñu sallallahu alayhi wa na ko ci hadiisam lu jàng ko tamit nag wante boo dee xër ci njàng léeg-léeg nga saaraan léeg-léeg nga dem ba saaraan ndax jaar jàngit def la yoon da lay may ngay jaar di def effort léeg-léeg nga xalaat xalaat boobu nag boo ci duggee yooyu bi sax leen na ko ndax nee na ku ci def lu baax man sunu sunu toxa sunu ko loo ajuroo wax ajuroo am rek daal boo defee effort yu baax ku nga ci am mais effort yu baax yooyu nag léeg-léeg moo indi jafe-jafe ndax nit ñi lañ cee far a jaar ba ku ne di def istiraat lu ne nga nii la ko yàlla waxee nii la ko yonent bi waxee bu ko defee mu am jafe-jafe mu am référence nag suñ tubaab ñëw ak nit ñu baax ñi fi nekkoon damay wax ne kenn ñooñu du ñu ay wujj taruñu loolu ay nit yàlla lañ yoo xam ne ku ne xam nga sa morom suñ tubaab boo dee gëstu ci seen biir ak seen diggante ñoom sax ñu ngi jéem a def benn carrière paquet bu sel tourisme si yàlla ndax bëgg di xool ñi bëgg ci wet googu fu ñuy dem ñu gëstu ko ba xam la fa ne bañ a farax faraxi rek di di détruire histoire wala nga di ko déformer loolu moo tax lii di def say la ngay def ku ko fekk la def lu ne la fekk lu ne la ndax gëm-gëmam ak pas-pasam moo lay indi nga bari def loo xam ne sax dañuy def ne loolu nag moo tax eh, euh, ma di ko wax ne lu ne dégg nga fu ne eh, jaar nga fa jaar nga fa bare jaar nga nga tarbiya nañ la fi nga bokkit doy na tarbiya wante am na noo xam ne boo ko doon doxee dina jafe maa ngi koy naa bi léegi ñoo toogaloon man leen ñun jamono boo xam ne dañoo defoon boo waxee ne du metti daaw ma sax lekk a ma ne ko léegi dem naa amoon naa boo xam ne bu ma kenn waxul lu ma naqari mu wax que ak la boo xam ne ci la a jaar mais dala ci jaar rek la la ci yàlla di defal muñ nga loolu mu bokk ci moom ci ay jikkoom kon suñ ñëwee fekk bokk yi ñuy bokk sant bokk yëpp ñu ngi ci profité di leen sant ak kilifa yi fi teew surtout ñoom imaam bay ñoom kilifa yi xam imaam ñu fi am ay ma yooyu loolu du ko wutal noonu boo bëggee doo ko wutal am noonu kenn bañu ko am na noo xam ne boo ko waxee yàlla sax boo ko waxee am nañu bañ yàlla te dara woon lu ko lu ñu koy ñu koy présenté rek man bi ñu daan wax bu ñu waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu metti ñu dem taal ma leen dañ leen di yab rek nit bu la waxee ci xam-xam da nga koy tontu ci xam-xam bu la waxee ci xol nga tontu ko ci xol bu la waxee nag ci xel nga tontu ko ci xel bu nga xam koo nga lijjanti ngeen bu jaree xel nga bu jaree xuloo ko mu jeex ku ne def loolu moo tax dajale gën a ciy wax dafa tasaaroo sax dafa amul wante am na ñoo xam ne tubaab yi ñoo ko tàmbali am ñu fi bàyyi waaye ñii xam ne ñoom la mag ñi ci ñi ci nekkoon ak seen Tuubaa léeg-léeg da nga gis ci yëfam ci seen diggante wala nga dem ci kër kenn kër yooyu da ngay sax rus yow parce que da man mën na yow xamatoo ci sax dara ndax lan fay fekk mais fu ñu koy waxee ñoom boo buggee wax dara dara benn daan daal baalee yow doo bu ko defee nga daal toog loolu moo bind doomu aadama bind ay yonentam euh, yónni leen ci nit ne leen mun leen am sañ-sañu may wax ak yéen damay am nit na yéen muy lekk ngeen lekk muy nelaw ngeen di kon jox na liberté doomu aadama pour que bu gisee nit ki ne moom bu ko waxee bu ko neexee mën na ko waxoo dëgg te du ko wàññi dara loolu liberté boobu mu ko jox nag ci la continuer ba yonent yi dem ma sànq ne bari na te yàlla wax na balaa teg mu ko saaxibal foofu nooxum ine daawatu xaw ñu day na wa naaran falam yasirhum la lu mat ay junne at nga nekk ko di ko wax ci nit te mënu leen fexe ba convaincre leen day kooku est ce na élégance bu ko defee yooyu day nekk mbir yoo xam ne ki koy fexee ba nit xam ki nga xam ne yow moo la wan sa borom nga nga xam la tax nga jàpp ca liggéey la mais du xot xotloo ko furoo ko xeex ak wax ju ko la gën a lu ne nga di ko wax te doo ci xam dara loolu moom bokkul ci ñooñu kon lii mu def mooy dégg naa sëñ Fallou léegi ci ci xutbaam mu boole ci man banaa lillahi masjidan man allahu loo baytan fil janna wala beneen beneen xadis bi loolu ma di ko wax may wax ne léeg-léeg nit ñi danañ ci profité da ngay gis ko dem jaay drogue wala mu sàcc daal di dem tabaxu su njumaa ne yàlla nee na dama ko tabax ne yàlla kenn du ko nax mënul nekk même bu yonent bi waxee da ngay bàyyi wax yonent bi lan la wax mais ki nga xam ne daf koo def ni ko yàlla digg man amana billahi wal yawmil axir wa aqama saa comme ni nga ko waxee woon ci aaya bi sànq ci xutbaam kooku mooy kii nga xam ne bu tabaxee ñëpp gëm ne tabax na ndax la ko lal moo tax kon jumaa ak jàkk nii nii rek la waaye nag masaajidillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi damay wax ne falaa tad'uu ma'a llaahi lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg nga dem ci barab ñu ne la jàkk ji jàkkay ibaadu la wala jàkkay murit la wala jàkkay tijaan la booba jàkk amatu fa grand grand place la falaa tad'uu ma'a du nekk fa di waxtaan mais bu ca dugal keneen kon sëñ bi jama jamoom ji def naa ne tey moom pare na ci ñépp a ko bokk waaye nag dëkk bi na yéen a ci gën a am euh, yéen ci gën am yéen la gën a yéen ko moom yéen maanaam yéen yéen yéen am ngeen ci seen li liñ ci war a def ngeen bañ ko cee sàggane ñu ci di leen julli si bu sëñ Cheikh nekkee ko nekkul ku fi te mën di julli si waxtu yi juróom nga mu lañ ko julli ko nga di ko def loolu kat mooy mooy moo tax mu nekk ah, kon nag sëñ bi ah waxoon nañ te wax naa buñ fi doon toog ba suba yi du tax tey ndax dëkk euh, sa dëkku maam la waaye yi tamit euh, maa ngi lay wax ne la sànq bi ma am na ustaas bu ma dajale léegi ne ma wax lu wax bu am solo naa ma ba wax ma ne ma poson bi mu di sax ma du réer ma ne mujj poson du réer boo ko mujjee mu réer kooku mooy amatul problème njëkkee ko mu réer kay mooy problème ndax kenn duñu ko jariñ waaye boo ko mujjee boo noppee sax sa nga xëy na sànni parce que kenn duñu ko doyee dara. kenn euh, kon moom sëñ Aliou la sëñ Mamadou Moustapha sëñ Touba am na sëñ bokk njóobeen meneen mu ngay bëgg dëkk ci côté boo xam ne ñoom moo leen intéressé moom ay moom njóobeen ba moom ak la démb moo tax dégg naa muy tudd fi ay fetal waaye xam naa. lu tënkatu du nag moom am problème moom wax dëgg yàlla loolu yoon la lislaam moom lu mu ñu digal dañ ko war def ba mu mel ne kon léegi loolu rek moo taxoon ñu ne dañ fi ñëw toog di sant ñëpp di nuyu kilifa yi fi teew ñëpp sëñ bi nga nuyu ñu sëriñ bi di ko ñaanal yàlla ñu bañ ko def phénomène yàlla ko yàgg te léeg-léeg day niru phénomène ku wax wax nga ne dëgg nekk dëgg ko defee loolu kon kilifa yëpp ñu ngi leen di ziar ngeen baal ñu àq te yàlla na fi yàlla def jàmm sëñ bi Cheikh yàlla na fi yàlla bàyyi képp ku ñëw yàlla na yàlla faj sa aajo te te te jéggal la ñu ngi leen di baal àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu